Mame Ngor ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. tey nag dañuy waxtaan ak yow si ñaari point bi si njëkk nag mooy euh, inauguration hôpital bi nag euh, fële ci Touba te Macky Sall président de la République war a fa dem samedi ñu gis na nag xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké def na benn appel wax na fidèles yi nañ teeru président comme ni ñuy teeroo Mbour ñu bañ a ŋàññ wala def li fi xewoon bee passé en tant que mouride en tant que euh, collaborateur du président Macky Sall mooy sa jàngat si loolu. waaw njàngat bi ma ci am moom mooy dama koy rafetlu di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké Bachirou mu yàgg fi loolu te di ñaanal tamit euh, le nouveau xalif général des Baye Fall euh, moom it mu yàgg fi yàlla may ko wér muy sëñ am di Modou Mbenda waaye tey man pour man ab murit boo demee ba ñuy wax murit mooy ndigal di ko jëfe te ñëpp xam nañ ne Touba titre foncier Serigne Touba la yow boo nee ab murit la nga ñëw wàlliyaanu ci dëkku Serigne Touba nekk fa. di woowee sa bopp taalibe Serigne tubaa am gan ndax Serigne tubaa bu amee gan Serigne Mountakha bu amee gan Serigne Touba moo am gan ndax moo fi toogal Serigne Touba mu ne sama gan gi nañ ma ko fonkal nañ ma ko wegal ay nit laa ca àll ba taxaw naan dañuy jéem a sabote képp ku ko fi def murit yi nga fiy fekk Macky Sall du li ñu ànd ak moom di ko jàppale mais dafa liggéeyal yoonu murit autoroute Ila tubaa bi rek doyoon na. tey mu jël hôpital bu toll ñii ñëw di ko inaugurer Serigne Touba su ko neexoon mu ne Mouride duñ ko woteel Macky Sall moo la gën a xam ni gars yi gañe du gañe Touba lu bari mais malgré tout ça dafa wane ni moom taalibe la nit ku baax la ku bëgg Serigne Touba la ku bëgg yoonu Mouride la. donc nag man li nga xam ne moom laay wax samay mbokk taalibe di ko wax ñi nga xam ni man ak ñoom ñëw séq yoonu Mouride képp koo xam ni jóg nga pour tilimal soo ñëwee di fi fekk Baye Fall di nga fi nekk fekk Mouride garaw Serigne Touba kenn du ko tuutale te Macky Sall du ko tuuti ndax dafa liggéeyal Serigne Touba li fi def benn président mos ko def ci yoonu murid voilà. deuxième point nag muy wàllum euh, chiffres yi nga xamante ne ñu ngi koy ping pong entre ministre des ak euh, ñi nga xamante ne ñoo yor wàllum statistique ñi révélé Sénégal dafa gën am benn niveau de pauvreté te pourtant am na ay ay programme yi xamante ne ministre des wala état du Sénégal lancé woon ko ñuy werante daal seen biir entre waa ANSD ak euh, ministère yoon noo jàngatee loolu. loolu jàngat bi ci am moom mooy ñun dañu am problème ministre finance yàlla dafa dogal ni ministre des finances yi ñu ma sa am ci Sénégal yëpp bi ci gën a nul moom mooy Abdoulaye Daouda Diallo liggéeyul kenn mësu ko gis fenn fu mu taxaw sax défendre ay intérêt président Macky fii ministre des finance bu nekk jaar na fi mais tey bu ñu demee bay wax ni Sénégal dafa nekk pays yi nga xam ne ci àddina bi ñëw fi gën a pauvre nga nekk ministre des finances loolu dafa war a dafa ruslu man dama jàpp ni. président Macky Sall mu ngi def ay pexe mu ngi góorgóorlu mu ngi liggéey mais ñi nga xam ni ministres yi nga xam ne daf leen jël teg leen ci ay point dénk leen ñoom ñoo war a wane la bon exemple ñoo war a dimbali sénégal yi mais man dama jàpp ni ministre des finances daal bi nga xam ni tey jii mooy le pire. des ministres des finances bi Sénégal mosu mosu am mooy Abdoulaye Daouda Diallo man pour man liggéeyul jàppalewul président Macky Sall parce que les sénégalais képp ku fi taxaw naan sénégalais yi pauvre ñu wala sonn ñu da ngay nax sa bopp les sénégalais sont trop fatigués bien vrai que ni ñun président la ñu àndal moom la ñuy jàppale politique am la ñuy def mais sénégalais dañ sonn pauvreté fépp la am ci àddina bi mais Sénégal dafa jéggi dayoo. te ministre bi dëgg dëgg neex yàlla gisuñu liggéey boo xam ne man man boobu